ñoom Pape Safalka secrétaire particulier du marabu ñoom Maxa Diagne impôt et domaine bu Tamba nuyu nañ ko Tëriñ Sarr madame Dramé ñoom soxna euh, soxnay Modou Dramé ñu koy ñu baax Aline ba di Kouthia numéro 2 ci Italie Matar Dien ca Suède ñoom Abi Faye ca Suède ñoom Sët Mbay Mbaye Fallou Góor euh, ñoom euh, Pape Modou mbay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom euh, Doudou Ba Abdourahmane Ndaw Abdoulaye Koli ñoom Babacar Tidiane ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement Pierre de Silva dañuy def nag moom mooy fàttali ki leen nag euh, incha suba ba le 4 avril incha allah dinañ def spécial Kouthia Show le 4 avril vendredi euh, nañ koy teg soobee yàlla waaye jeudi bi dinañ leen ko defal pour vendredi bi ngeen mën a bànneexu seen biir kër mbok yi nag li ñuy def moom mooy seeti Karim Wade troisième mise en demeure nga xam ne papa ji ak doom ji ñoo ko taxawal mooy sauver Karim Karim ci euh, troisième demeure bi nga xam ne mu ngi koy dund ci biir kaso bi na lay demee pénitentiaire il faut ma seet pénitentiaire bi pour ce que allo pénitentiaire na nga def ça va bien ça va kii de dañ ma ko indiloon keroog ci sama jànq bi seen jàppante bi hmm. maa ngi koy ñaawlu trop parce que yëg naa ne après bi da doon laajte ban coow moo am ci biir maa ngi jéggalu baax maa ngi jégalu tey xanaa danga am ngénte pénitentiaire sa mbaxane ñëwul tey li xale wax danga def defar ba mu baax di tabax ba mu kawe pénitentiaire man dama jommi li ma doon gént yëpp ndekete lii la. Hmm. naka jekk ma ne yi maa ngi gént ndekete lii laa doon gént. yow waxoo man nga koy jox. pour baax la ko wax nga fas sa kanam. indi ah adduna amul solo pénitentiaire ndekete ni ngeen bënalee. <laughs> yow mooy pénitentiaire ñam buñ ma indil nga lekk ko. moo tax it gis nga. yaa ngi am maaleykum salaam. am yéen tubarkalla sama xaalis yi na Karim doy na doy na doy na. Mm, baax na pénitentiaire li ma doon gént fan yëpp dëgg la. Mm. Awa Ndiaye wax na ma. innocence intable dootul innocent coupable intable la. ndeysaan man Kalidou kal na ma. bul def nii xam nga man sooy def nii man dama lay yërëm. Awa Ndiaye. master boo jee lu ma ko jàppale wut seen sama papa amul sama papa njëkk na ko jël jox ko ministère doxalu ko sama papa wàcc ko ma ne ko papa awa daf ma bëgg ngir yàlla jàppale ko. mais teewu kaay wax la man. Awa Ndiaye mooy ministre boo xam ne sama papa fal na ko ñetti yoon foli ko ñetti yoon. ci man la mujj weexu moom moo yoroon génération concrète. mais wuy ma bul jooy Awa Ndiaye peut-être day bañ fi nga nekk mu ñëw fi moom tamit. mu dama ragal ñoom ñëpp ñu mujjee foofu parce que PDS parti démocratique sénégalais ñoom ñu dem fekk APR ànd pàccoo réew mi ànd pàccal ma xam dafa ragal prison yow tamit. comprendre ko man jigéen dama ragal mu dem. Hmm. ñu dem tonton Ousmane Ngom du dem. innocence intacte. Casamance moom a yoroon génération ko fay dootul innocence léegi coupable intable bett na ma Kalidou Diallo moo njëkk a dem Awa Ndiaye ak lu mu ti métti métti awa bul fàtte fii nga jël ay kuddu yu jaa ñaar fukk nga jaay ko lu la neex ma teg ci sama tànk bañ sama a toroxal le tey mi yaa ngi nii daw làqu waaye li ma doon gën yëpp lii la pénitentiaire. mais xam nga lii yëpp lan moo koy faj. sa papa tamit dafa war a ñëw moo sinjiri ak sa yaay bu ko defee ñu dimbali la nga génn. fukki fan ak juróom moo fi dese mise en demeure bi jeex ñu ngi may sonal gauche ñu ngi may sonal droite lii yëpp ñun ñoo ko def man nag li ñu bëgg a xam naa ko dinaa ko def. Ah, bu fekkee ne ku tooñ daw làqu ci ñoom ñu bàyyi la maa ngi jox ordre. damay joxe ordre pour xool ndax dinañ ko def tous les militants de génération concrète nañu daw ci parti APR daw foofu. pour am naa def kon yow nag yow rek nga des fi. parce que ku def ñu tëj ku deful ñu tëj te bu ñu gisul tëj bu ñu gisee tëj nañ ñu tëj ñu ñëpp ñu tëj waaye su ma du ma may mokk man Karim. awa Ndiaye fi ma jaar ak moom awa kuddu waaw moom def li Ndiaye. awa kuddu awa Sujada awa Satala awa Barada. maintenant àddina nii la lii lii yàgg na ci politique lii yàgg na si du si lu bees da ngay muñ rek waaye nga garder sa ngor ak sa muñ li ma la seen papa defalul ci àdduna amul tey ñu def ma nii waaye may xamal Macky Sall bàkke nga njaat bi lay bàkke na njaat noppil ma wax la lan moo tax xam nga nan ngay def gis nga àddina nii la xam nga yow sa papa xëyul xëy rek nekk PDS nekkoon na yeneen parti jékki-jékki waaye du temps noonu la sama papa moom Senghor la woon te dafa am fula mu créé parti dem boppam parce que Senghor daf ko waxoon ne ko doo am parti mu ne damay mouvement pour soutenir la sama papa nak ko door ko science ko door ko miig waaye ñii dañ ma yor. kon Awa Ndiaye la science nag ma fii fii lañ ma màcc ci kii ginnaaw lii dafa ñaaw. bul jooy bul jooy ma wecc. Karim bul jooy. <laughs> noppil bul jooy bul jooy bul jooy. tonton Ousmane Ngom. ñii di waaj a a sa sañse bii nga nekk fii di jo. Eh, eh, eh, pénitentiaire. noppil noppil. woo nañ ma woo nañ ma woo nañ ma. noppil noppil noppil